mu mel na kon nag xam naa nit daal mas na sañ mm-hmm. nit mas na sañ ndax yooyu ni mu yittee la yàlla ak ni mu ko mettee tabarkalla mu di ko tawat ci nopp yonent bi ba ko ñeenteel moo di li ali ibnu abi talib daan wax kalimatu xaqin urida biha albatil ñi ànd ak yonent bi dem ci toolu xare ñi ciy dee dee ci ñi ñuy blessé ñu blessé leen ñu ñëw ñi ñëw ci tooy tooy bi ni leen ah foye na seen bakkan ñàkk ngeen foye na seen bakkat ndax kat benn ñaanam xajul ci musal leen ñaanam fekk na ay pas-pasi nit lañu bëgg a fecc ñaanam kay xajul ci yéen waaye mu ngi leen seetaan ba tabarkal la yéen ñëpp tos ngeen waaw moo ko def de bu ñu woon jibril mu làq leen rek mu làq leen dëgg la loolu dëgg la sax waaye waaye dëgg guy dëggal neen la dëgg guy dëggal neen la moo tax dootul dëgg kalimatu xaqin urida bi al uh-huh. ba waxuma ni pas-pasu ñëggam xaw na yëngu waaye yonent bi sax xaw na jaaxle in takunu taalamuun fa innahum yalamuna kama talamun